mel loolu boo ko jëlee mu mu ay xale faaw rek dina am di nga gis ci xale yi jeexite jikko yoo xam ne ca Sëñ Tuubaa lay jóge boo ko boo ko toppee waaw loolu rek lañ ci lañ ci jublu bu ko defee nag la ca toppaat nag mooy jëm ci wàllu nekkin wi nekkin wi ñetti pàcc la muy dund gi cat gi ak paj mi dund gi dañoo natt réew mi ñu xool dafa am ñetti catégorie ñu nekk ci suuf xam ne mooy way ñàkk yi ñu nekk ca kaw luxe nga xam luxe moom xam nga amul fu mu yem luxe moom day dem rek amul fu mu yem euh, boo melee ne Bill Gates wala Mohammed bin Salman sax du tey ñoom am na leen luñ bëgg ñoom fi ne waaye amul fu muy yem léegi nag ñu jël nag ci li ci digg bi dañuy taxaw kenn kàttan li ñuy teg ci daara ji mooy képp ku fi ñëw te nekk ci catégorie boobu ci digg bi te mooy ñëpp moom daanaka loolu moom daanaka mooy ñëpp rek euh, dañuy fexe ba fa nga jógee moom du dàq fi nga fi nga jëm si ci fi ngay teud ci li ngay nek ci ci nekkin loolu nak du doon lu ñuy topp moom ci modernité ndax gis na rek barki dem image yo xamne luma luma luma luma met luma ma lu la ndax yërëm na xalé yoy daal la jo xamne dama gis na ñuy ñuy ñuy top xalé yi ci liñ bëgg ba tégal leen écran bo xamne ay mikke lañ leen cee tégal waye kuy gëssu ci yaa ta xam jeexit yi mi def ci xalé di nga xamne ne loolu loolu baax motax mané ma yi dé su ko top ba li tax ñu indi fi xale yi ñu di ko sàggane tax ñu indi fi xale yi moom mooy ñu jàng te yar toujours dama koy wax jëwriñ yi fi nekk na leen xale yi dëgg la nañ leen di nañ leen di nañuy fexe bañ bëgg daara ji bëgg fee nekk bëgg a jàng alxuraan bëgg a yaru nañ fexe ba loolu neex leen ci ay méthode waaye bu mu tax nag ñu bàyyi xale yi ñuy sàllañu sàllañu ñu leen neex def ñu leen neex waxe leen neex loolu boo ko toppee da ngay fàtte yow sa waajur wi la ko fi bu doon kopp koppal ko rek ak bàyyi ko ci lu ko neex moo la ko dàq kon loolu taxul muy ni ko fi <laughs> kon li ci des lool loolu lool lañ loolu la gën a gën a gën a gën a fonk bu ko defee kopp koppal yooyu ñu leen def nag ak euh, neexantal geeg negg-neggal geeg yëpp euh, njariñ li objectif bi lenn képp la mooy bëgg mu bëgg lañ koy def loo kenn loolu képp la ndax bu ko bëggee noppal boppam noppal la ma waxaat ko ñaareel bi mooy cet gi cet gi it moom it fonk la ndax li ma doon wax dafa ñaari mbir yoo xam ne du ma xam média bi la wala ñun ci suñu bokk la ñuy yëngu ci daara wala média ku ci nekk am nga am nga responsabilité ci lii nii may bëgg a mooy waxtu fu wuñ tuddee daara dañ koy taqale ak tumuranke dañ koy taqale ak tilim dañ koy taqale ak yalwaan ñett yi fu ñu tuddee daara rek nañ ko ñett yooyu wala fu ñu tuddee daara taqale nañ ko fitna ñun suñ biir dangay ngay gis ku yar ku yar doomam mu dem ba tambalé xamé bu défé dara nga tital ko bàyyi li nga def dama lay yobbu dara ji de loolu yaangi li nga ko wara bëgg lo yaangi koy ragal lo <laughs> te te bay bàyyiwoo ci xel euh, kon wala ah ma ngi jéggul di li de yërëm la rek wala <laughs> ma ah da de añub dong la rek donte da nga jublu rek woyof lu mm-hmm. waaye ay terme la yo xam ne yépp rek cosaan day dellu ci am lu ñuy taqalaat taqale ak ak daara donte lu ci nekk mënees na ko layal wa théorie daal ci yeneen anam yoo xam ne mën naa am ñu déggee ñu rafet njot ci ne mën naa nit ki lu baax rek la ci jublu waaye xalaa kulli xaalin méthode boobu bokkut ak bi ñuy bi ñuy bi ñuy doxalee ñun bu ko defee ceet gi nag moo tax anam gi ñu ci doxee moom xala li ci njëkk mooy Euh, dañuy yar gone yi ci ak cat foo gis rek bërëb yoo gis dañu fay teg ay poubelles yoo xam ne dañuy yar gone yi ci duñ sànni ba fi ne duñ ko tàmmati sànni duñ ko du tàmmati faax lekk dara tàngal sànni wala bonbon sànni duñ ko tàmmati tàmmatuñu it def tànki neen ci bërëb buñ ko wëtt defee waaye ci biir lool li ngeen yar ci soli dàll yëpp bu ngeen gisee bu duggee ci bërëb bi rek di ngeen ko seetlu dàll yi waaye du du dañ leen a xamalaale yi ñu fi ñu war a summi dàll ngir loolu it ci teggin la bokk bu ngeen xoolee ci alxuraan gis ngeen sax yare xale yi moo tax cet gi ginnaaw biñ ci yaree xale yi ba noppi it euh, di sangu lu mu néew néew bis bu set benn yoon lu mu néew néew laa wax bis set benn yoon di jàpp ci waxtu yëpp yëre it xamuñu ci sol ñaari fan ak yooyu yëre daal saa bu moom dañ koy sumb moo xam dañ koo sol léegi nag wala déet dañ koy sumb jumtuwaay yi fóot yi tamit ay machine lay doon yoo xam ne yuy awante lay doon nga xam ne daanaka fu ñu toll ñu ngi ñu ngi ñu ngi fóot ngir loolu beneen bi ci topp dañuy wut jëmm joo xam ne moom it lu mu néew néew day xëy defar daara ji yëpp bu gontoo it balaa wàcc defaat ko loolu ak anam la ci ak anam la ci cet gi nga xam ne moom lañu moom lañu moom la ñuy sàmm fii beneen pàcc bi mooy paj mi ndax ku wax doomu aadama rek di nga wax jàngoro ndax ñoo ñoo tax ko momi jël nañ ci ay matuwa yo xam da bok sax ci liñ fi duggé kep ku fi dugg da ngay inscrire ci ben mutuelle de santé bo xam ne ñoo daara ji dañu am partenariat ñoo jëflante dañ gisee carte yi ma ma yor ni mutuelle la mutuelle la bu ñuy wax euh, transbi ak na ñu bari min nañ ko ñomit euh, ma ngi leen di jagleel ab nuyo ndax ñu son lañ ci daara te am nañ ay taxaway yu ragniko ragniko ci daara ndax dañu am offre bu ñu daara bo xam man nañu wax ne daara rek lañ ko lañ ko jagleel ndax euh, te lépp ngir social rek tax bëgg a dimbalanteeg euh, daara yi euh, bu ko defee mu ñoom offre boobu day tax nga dañuy mën a couvrir xale yi 100 pour cent ci bépp feebar bu leen bu leen bu leen dal moo xam consultation la moo xam hospitalisation la moo xam pharmacie la ci ci ci ci ci ci poste de santé centre de santé hôpital yépp waaw yenn analyses yëpp dañ koy dañ koy dañ koy couvrir 100 pour cent bu ko defee ci biir loolu it du tee day amaale ci daara ji boîte à pharmacie boo xam ne garab yi nga xam ne du ñuy faral di soxla te aajowul nit ki di génn di dem hôpital ak yooyu yëpp dañ ko fay dañ ko fay am. ci biir offre bi it ñetti weer yu nekk yit dañu fiy ñëw ànd ak i médecin consulter xale yëpp waaw moo tax ci biir pièces yi ñuy yi ñuy fournir bu ñu dugg ci daara ji dinañu laaj euh, extrait de naissance. waaye tamit dinañ laaj visite contre visite dinañ laaj it groupe sange bu xale bi bu xale bi ndax loolu yëpp day nekk ci dossier médical bu xale bi nga xam ne moo fi nekk yooyu yëpp nag ñuy sonn xale bi rek a tax xale bi rek mooy mooy mooy mooy mooy intérêt bi ci loolu mooy sunu intérêt ci xale bi ñu man cee am résultat ba ñu bëgg ci njàng mi ci yar bi ndax ñaar yi rek moo tënk doomu aadama jàng ak yaru xam-xam lépp lu am njëriñ la moo tax ci biir xam-xam bépp bu am njëriñ boobu suñu Tuubaa jàngale moo tax daara ji it ñu euh, ko suñu mbokk mi waxee léegi euh, dafay dafay ci ci ci jubluwaayam ëllëg euh, dafa bëgg léegi sax bari na mooy ñuy tënk njàngum école mi ci at yi nga xam ne ci école français yi nga xam ne cycle normal yi ñu baaxoo def lu mel ne primaire bi 6 ans noonu loolu loolu nga xam ne lu gudd gudd la loo xam ne ni ko mbokk mi waxee léegi sàng temps mënu mënu ko weesu te day mel ne réew mi mënuñ cee génn ba tey te am nañ ñoo xam ne am nañ ay ay rakk yoo xam ne ci li ma doon wax léegi rek ci liggéeyu suñu waajur Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Souhaïbou maanaam ab génération ñaari am na ñaar yar na ñaari génération yoo xam ne bu ci nekk dañ bu ñuy am bac day fekk ci vingt ans yi nga wax nii vingt ans yi ñu war a amee bac normal ci ki nekkoon ci école bi ci la ñuy toll mm-hmm. waaye dañuy am bac ba noppi boole ko fekk mokkaloon nañu alxuraan jàngoon nañ seen xam-xamu diine ba noppi am bac amoonoo ko gars yi nekkoon ci école xam nga loolu léegi ña nekk ci école moom bët yoo leen di xool xam nga ne ñooñu sonn nañ ñàkk nañu taxaw lool kon moom it méthode boobu rek lañuy lañuy lañuy la ñuy wéyal ba nga xam ne xale yi fi nekk dañ leen mën a <clears throat> saytu ba nga xam ne <clears throat> duñu tardé ci dara tardé nag bu ñu koy wax liñ ci jublu man li ma ci jublu mooy tardé jàngal alxuraan waa tardé xam sa diine en tant que ab jullit waaye jubluwuma ci li ci ñenn ñi baaxoo jublu nga xam ne da nga yor seen doom di leen jàngal ba yàgg sax ñu la xale bi dañ ko yóbbu ci école bi ndax day wala day âgé ay baat la yu yu xorom sax yoo xam ne ci ab jullit lu ruslu la ci ab jullit daal mhm. kon euh, yaakaar naa lii rek doy naa tënk ba beneen jamono insha allah ci xam xamlek euh, daara ji ak jubluwaayam mm, di sant mbokki taalibe yépp di sant dëkkandoo yi ci gox bi di sant it way juru dong yi surtout ndax ñoom ñoo am kóolite euh, indi fi seen njaboot ba tax daara ji tudd daara ndax bu bu dul ko nag dong yi fi nekk di jàng kat fii kër dong lay tudd kër <laughs> kër lay tudd waaw donte jàngalekat a ngi fi ay tabax ngi fi ay kalaas fi bu dong ñëwul moom kër lay tudd ba tey balaa tudd daara xale yi dañuy ñëw di jàngale